Euh, ca fële nga xam ni mooy euh, ca salon de massage boobu nga xam ni mooy Sweet Beauté euh, SPA te coow aussi juddoo fa njëkk maître Moussa saar nan nga gisee loolu nga xam ni xewoon na fa ak li nga ci dégg li tukkee ci plainte bi nga xam ni aji Sarr aji Rabi Sarr def na ko jëmale ko Ousmane Sonko ak déclaration bi nga xam ni Ousmane Sonko def na ko parce que loolu fekkewuñ ko. plainte bi la moo ñu mën a wax ak déclaration bi ci loolu lañ mën a sukkandiku lan nga ko gisee ak lan nga ci dégg. Euh, waa Pam Ngañ ci euh, mbir moomu xew sur les faits euh, duma ci mën a addu mhm. duma ci am lu may dëggal duma ci am lu may weddi mhm. dama ciy maandu parce que xaw ma ca lenn mhm. te loolu la ma suma métier sant moo di boo nekkee avocat mu am dossier boo xam ne dafa nekk devant la justice te bokkoo ca ñay layoo amoo sañ-sañ wax ci te kon ka bokkuma ci ñaar ñiy layoo fen awma sañ-sañu wax ci rax ci dolli xamuma ca lenn maintenant nag ci biir débat bi du ñàkk mu am ay ponk droit ci procédure bay am assemblée ay question de principe de droit ay concept loolu danaa ci mën a xuus ak buñ ma laaj ay question en tant que observateur parce que du ma analyste politique du ma politologue mais observateur la comme citoyen danaa mën a tontu ci mais ci fay yi moom damay wax rek comme ni ñuy xale yi di wax booy bële damay paas ci fay yi. d'accord waaw. Euh, Serigne Saliou loolu dama la koy nangul ah. waaw suñu métier dama bëgg a tënku. ci su damay damay damay damay waaw ñu <coughs> damay damay dama la koy nangul. donte itam mën naa mën naa ci sax am benn euh, beneen xalaat parce que man jàpp naa ni. Euh, même bu fekkente ni sa métier am na fu mu la yemloo ci fay man déclaration bi rek laay wax parce que bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko gannaaw bi nga xam ne tuumay am na am na lu mu ci dégg am na lu mu wax loolu rek en tant que en tant que nit en tant que rek sénégalais ban yëg-yëg nga am ci loolu ban dégg-dégg nga ci am. waaw Pape Ngagne moom luñ ko <laughs> moom laa la wax léegi xam nga nit lii sa doole. waaw soo nekkee un professionnel mooy tënku ci sa charte métier. mooy suma doole kon charte bi suma métier tëral awma sañ-sañu benn yoon jalgati ko parce que ma ko defee damay fragiliser suma bopp fragiliser suma corporation su ma waxee ci déclaration bi rek mooy daanaka wax naa ci fee bi parce que damay xaabaabal moo tax ci fee lii am nag amul nañ ko gisee du ma ci am lu may weddi du ma ci am lu may dëggal maintenant nag sur l'aspect politique en tant que citoyen dinaa ci joxe suma xalaat en tant qu'observateur les questions de droit également d'accord lever immunité. d'accord viol lan la ci loi wax. voilà lan mooy plainte contre x et cetera lan mooy juge d'instruction lan mooy réquisitoire introduit loolu yëpp bu ngeen ma ci laajee naa ci mën tontu incha allah. léegi li Ousmane Sonko wax ni nag dañ ko ci bëgg a faagaagal dañ ko ci lalal pexe ndax acteur politique la ba mu sàkku ci ñi nga xam ne mooy ay ñoñam ñu génn loolu lan nga ci mun wax. waaw xam nga en tant que observateur politique c'est de bonne guerre te lu jaadu la suy politique. surtout Sénégal lu ñu jàppee politique moo di ne lu waaye mën a teg sa morom ci wax ak jëf nga teg ko sa morom muy jóge ci opposition dem ci pouvoir mhm. jóge ci pouvoir dem ci opposition mooy ñoom langue politique gi yëpp ci li ma seetlu noonu la ñuy doxale mhm. kenn du may sa morom dara pour mën a nangu la mu yor mhm. kenn du may sa morom dara pour ñi ñu fal ba pare ñu mën a kunne yor la ñu yor à partir de sa moment stratégiquement sur le plan politique jaadu na su nekkee ne homme politique nga nga jël lépp dugal ko ci politique loolu kenn mën na ko tere un acteur politique ku nekk ci pouvoir aussi léeg-léeg nit critique ko dans l'opposition mu tontu ne ce n'est la politique donc ci seen biir la xam nga réew mi c'est la il y a une primauté de la politique sur tout d'ailleurs mu yàq réew fii tout sa ramène à la politique donc jaadu na lépp lu ñëw rek ñu dugal ci politique kon lu ma mën a dégg la loo mën a dégg la moom ah. li mu wax ni laal dañ ko ko lalal lu ma mën a dégg la waaw d' accord Serigne Saliou bi nga liiree plainte bi nga xam ne aji Raby Sarr def na ko déclaration bi Ousmane Sonko def parce que ñoom ñaar ñooy acteur principaux yi ku nekk dégg nañu la euh, ci coow li nga xam ne xewoon na euh, fekkewuñu ko mais loolu moo ñu ci boole mooy kii plaintam kii déclaration lan nga ci gis yow. waa xam nga boo gisee dossier bi en fait les les deux principaux concernés Adji Sarr la ak Ousmane Sonko. mais boo xoolee li am tout autour jéggi na sax Adji Sarr léegi jéggi na Ousmane Sonko am nañ ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci dossier bi te je crois que ñooñu aussi c'est des pièces maîtresses pour avoir la lumière sur cette histoire là. Mm-hmm. parce que bi ñu waxee Adji saar ne am na benn oto bu ko jël si loolu je crois presse bi wax nañ ko. Mm-hmm. ki ko jël si du ko sax waa section recherche euh, déglu nañ ko muy benn Maodo Malick Mbaye mm-hmm. Sidi Ahmed Mbaye je crois c'est son nom. Sidi booba léegi c'est devenu une nébuleuse et en plus boo xoolee plainte bi ki nga xamante ne moo ko rédigé kooku xam naa ne c'est une professionnelle du droit peut-être que après professeur Ngouda wala ñoom daw dinañ ci mën a wax sax mais boo xoolee ni ñu ko bindee ak article yi ñu évoqué du code pénal nga xamante ne qui reprouve le ak li nga xam ne sax moo war a mën a condamner Ousmane Sonko loolu lépp dans la mais loolu aussi c'est moom moom moom moom la ni ñuy formuler plainte du ma habitude di gis par exemple ngay évoquer article yi moom moo war dugal ki nga ki nga xam ne mooy yow moom ngay mooy porter plainte. Mhm. je que ki ngay jëbal plainte bi soo waxee yow li la xam moo la naqari moom après mooy apprécier en fonction des textes yi nga xam ne moo ko régir xool li nga xamante ne moom la war a mën a doxalee liggéey. mais ba tey c'est pas interdit. non c'est pas interdit mm-hmm. xam nga c'est pas interdit moo tax aussi très souvent euh, affaire Ousmane Sonko bi des fois da nga ciy dégg ñu ci bëri ne warul woon dem foofu. man mm-hmm. je me dis que c'est un homme politique Ousmane Sonko aussi nit la. Mm-hmm. am na loo xam ne wax na ko nit ñi nee na dafa am feebaru ginnaaw léegi loolu aussi je crois que ñun luñ koy nangul la. su demee ba nga ne fii la tàmm pour dem fajoo ji fa dañ ne salon yooyu dañuy am agrément ça veut dire ñoom ils son dans la légalité pour exercer ce métier là. ok mais agrément bi aussi bu ñu sukkandikoo ci li ñu gis ci dans la presse en ligne agrément bi liñ ci liñ ci def moom mooy euh, euh, soin de visage ak euh, ak. coiffure soin de visage ak ak coiffure. xam nga waaw c'est ça xam nga salon de beauté yi. boo mhm. gisee SPA yi foo gis rek. toujours y am na ay massage relaxant il faut war a nekk ay massage tonifiant mhm. et puis métier la boo xamante ni dañ ko war a organiser parce que boo xoolee par exemple en France métier la boo xamante ni non seulement c'est organisé mais dañu am sax benn charte éthique mhm. charte éthique moo leen di permettre très souvent dérive yi nga xamante ne mën nañ ko gis ci salon yooyu ci salon yi presque du du ci am mhm. moo tax ma ne man bu fekkee ne dafa dem pour man loolu mën naa ko nangul léegi nag li nga xamante ne moom lañ war a mën a prouver li nga xam ne tey moom lañ ko tuumaal dañ ko tuumaal ne dafa nit te neexu ko mhm. ba pare daal koy menacé ne daf koy rey loolu je crois que tey war nañu ci édifier bu fekkente ne dafa am leneen loo xam moo fa am loolu je crois que ça relève de l'ordre moral mais li nga xamante tey mooy les faits mooy waa justice li ñu war a leeral moo di Ousmane Sonko est-ce que li ko ndaw si tuumaal am na wala amul je mhm. crois que il faut que les gens s'arrêtent à ça de plus en plus nit ñi ñi ngi dérivé parce que ñi ngi wax le côté moral waru na fa dem waru fa dem benn affaire la les gens même parlent d'un mouvement insurrectionnel bi nga xam moo am léegi nag ci loolu aussi dama am lu ma ci bëgg a wax parce que Ousmane Sonko bi mu bi ko joxee convocation te convocation moom jàpp na ne en tant que député jaarul ci yoon am na foo xam fa la waroon jaar procureur bi yoon yónni ñi nga xam ñoom la war a yónni pour ñu war ko dem jëli parce que moom jàpp na ne loolu la mu xam ne su deful nag en tant que homme politique aussi mën nañ ko ñëw jëlee ko fa yóbbu ko peut-être après moo ci perte woo ay ñoñam woo leen pour ñëw aar ko ci biir loolu wax jamu wax ñenn ñi ngi naan appel à l'insurrection et cetera ma ne am na terme yoo xam bala ñu koy utiliser il faut nga laaj ñi nga xam ne droit màcc na est-ce que foofu mouvement insurrectionnel am na fa wala wala nga dem ci texte yi nga xool définition juridique insurrection mooy lan. wala nga dem ci code pénal bi article quatre-vingt-cinq mi ngi siy wax. nga xool est-ce que les trois alinéas ñi ngi répondre effectivement ci li ñuy wax mouvement insurrectionnel. donc moom wax ne foofu ci ni ma ko jàngatee pour man insurrection amu fa et la responsabilité Pam ngañ di procureur de la République parce que yow mënoon ne da nga jàng droit war fi nekkal yoon ba pare war a tënku ci yoon nga ne député da nga ko soxla jaaral fi nga war a jaar je crois que y a le procureur général bi nga xam ne war na mën a seet le ministre de la justice ñu jox këyit assemblée nationale mais su fekkee daal yow yow li xew da nga ko bëgg bëgguloo rek ñu wekk ko Ousmane Sonko non cest nga jàpp ni procureur man dama ne dama ne violence ya nga amoon tey dafa amoon mhm. ña fa nekk am nañ ci responsabilité wante ka nga xamante ne moom moo sooke mbir mi dama ne procureur de la république moom mënul rëcc ci li nga xam ne am na foofu. d'accord que moom si wàllu boppam. voilà su jël woon initiative yooyu. peut-être la nga xam moo fa am du fa am. cest mu mujjee ah. nii bu fa njëkkee woon. bu fa ah, xam nga très bien fii mu mujjee ci ci assemblée nationale. mais su ko njëkkee woon Pape nga jàmm jàmm na ñooy. voilà merci beaucoup alors professeur Ngouda Mboup euh, comme ni ma ko laajee rek dégg nañu coow li.